wajalilaayi jëfati tubaabaat misrasmi abijaayi xayri manabaat jërëjëfati Cheikh Ahmadou Bamba Xadimu Rasul commission sociale bu Touba ca kanam ci njiital Serigne Mourtala moom Serigne Abdoul Fattah ak jàmbaaru fàkk tëdd yi nga xam ne ñoom lay àndal guddi ak bëccëg ñooy dellu siwaat di sant yàlla bu wér di gërëm Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Xadimu Rasul waaye di sant ak di ñaanal Serigne Mountakha Mbacké mu yàgg fi lool te ànd ak wér gindeeti na askan wi waaye gindeeti na commission sociale bu Touba ca kanam xam ngeen ne mbokk yi social Ramadan fan yi yëpp commission sociale bu Touba ca kanam mu ngi jot ay xéewal yu bàyyeekoo ci mbokki taalibe ci biir réew mi ak ci bitim réew ngir am yéene dimbale ñaari junniy famille ak juróomi téeméer commission sociale bu Touba ca kanam jot naa séddale 134 tonnes ceeb yu teg 700 14 tonnes de sucre commission sociale bu Touba ca kanam joxe na 7 millions 862 francs ci paas ndax ku la jox saaku ceeb jox la suukar jox la tàndarma nga jóge ca sancaan ya jaadu na mu yëkkati ab lim jox la ko loolu bi ñu ko dajalee mën na juróom-ñaari millions yu teg mbokk yi. commission sociale bu Touba ca kanam deux mille sept cent cinquante quatre ñaari junni ak juróom-ñaari téeméer ak juróom fukk ci ay borom kër commission sociale bu Touba ca kanam dimbale na leen mbokk yi. loolu de boo ko doon xayma ay junni junni doomu aadama ñoo jot ci xéewal loolu nga xam ne ci xéewal yi nga xam ne moo bàyyeekoo ci bokki taalibe yi. ngeen joxe ko te yàlla tax commission sociale jottalil leen ko te yàlla tax waaye mbokk yi xam ngeen ne daanu dajul suuf lii lépp bi ko commission sociale defee ba noppi jaaxle lool magasin yi weddi na daaray kamil yaa ngi taxaw association yaa ngi taxaw handicapé yaa ngi taxaw ak ñi ko dégg jàpp ci ñi ko yeyoo lañu waaye keroog ba commission sociale jaaxle sëngéem sëriñ Mountakha Mbacké xalif général des mourides yàlla fi yàgg lool te ànd ag wér ci lay yegg si naka jekk bu commission sociale mu see jóg sëriñ Mountakha moo doon jiitu tey daf leen jiital mbokk yi ngir lan ngir gindi leen fukki tonni ceeb ngir gindi leen fukki tonn pepp ngir gindi leen boo ko doon xayma loo ëpp ñeenti téeméeri borom kër mën na leen dimbale ci lii nga xam ne moom la Serigne Mountakha indi ci waxtu wi mu ko indee nag mooy waxtu wi nga xam ne commission sociale bu Touba ca kanam jaaxle nañu ndax ñi ko yeyoo ngi taxaw magasin yi widd na ah ki war a taxaw ñëpp nag ñëw ak jëf jure ji moo tax ñuy delluwaat di sant ci Serigne taxa di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak weer weddi kat gis bokk ca kii nag mooy ki mat a topp. kii nag mooy ki mot waxtu wu nekk mu naan ñu jëm leen xam li xew kii moo xam li xew ko mbokk yi kii ki mot kon ay ca murit waaw sëriñ Cheikh ay ca murit ay ca day mel ne ni ko sëriñ Cheikh waxe te ma feggoog sëriñ Mourtala mi nga xam ne liñ naan moo waral mbaboor mi ndax kat ku ñeme dañ laa déey te moom daa mel ne maamam da koo déey waaye sëñ Muntaxa nag ci ni ko sëriñ Cheikh waxee daa mel ne danoo fekk nu mel ne kuy bëgg a lab mu jàpp sunu loxo yëkkati nu ba ca kaw neen waa man kat mag yéen ay ànd liggéey bi te loolu ba mu koy wax booba jëwriñ la booba ba mu koy wax jëwriñ la de Cheikh ndax bam naan na murid ba muy jaayanteel juróom-ñeenti murid sëñ Tuubaa booba booba jëwriñ la tey mooy sëñ Tuubaa kon tey bu demee ba bët yi xonq bu demee ba magasin yi vide bu demee ba ki jiite commission sociale ay nelawam mënta doy ngir li fi ne woon jeex na te xam ne laaj méttee waaye nag li laaj di métti métti joxe ko gën a métti nga xam ne murid li ëpp ci murid di joxe nañ waaye nag Serigne Touba ñëw ak dooleem Serigne Touba ñëw ak taxawaayam Serigne Touba ñëw ak ak matam muy sëñ Mountakha kon sëñ Mountakha lam ne woon murid yi nañ jéem a gëstu ji li xew murid yi war nañoo xam li xew kii kii ki mat a topp de Cheikh kii ki mat a roy kii mooy ki mat a dénk sa bopp ndax moom day mbooleem ñi fi ne te mu jiitu leen fi kenn ku ci nekk seq na koog yow mbaa mu seq kook sa baay mbaa mu seq koog sa maam kon ay ca murid ay ca murid ndax lii daal mooy Touba ca kanam bu kenn xeeb bu kenn yéem feeg yoon a ngi dem. Mhm. feeg yoon waa ngi fi. Mhm. waaxu waaxu si leen du jeex mbokk kon lu waay am lu waay mën jàppale commission sociale mhm. ñu jàppale néew ju doole yi cent trente quatre cent trente cent ñu dugal ko ci juróomi téeméeri ñaari junniy borom kër. ak juróom ñaari téeméer. ak lu topp. soixante huit mille personnes sept cent bu doon kër gu nekk juróomi nit lay def jëfandikoo jëfandikoo nañ ci xewal yooyu mbokk yi. kon bu kenn xeeb bu kenn yem yoon waa ngi ni mbokk yi jërëjëf Serigne Touba. Serigne Cheikh mun Mountakha mooy lamp bi jiitu di nit ah sëñ Mountakha soññee na nag kon murid yi nga xam ne yàlla da leen a mën a gan dañ yor lu ne gàññi loo xam ne wér na ma ne sëñ Touba doon na ca dara kon war na ñoo mën a jaajuwaat nag roy murid bu mag bi murid bu mag baa ngi nii ay ca murid ay ca murid ay ca murit wajalilaayi maskani tuuba baat misras mi abijaayi xayri ma nabaat